comme ni ngeen ko gisee ñu ngi nii dugg Muzdalifa waaw Muzdalifa la ñuy dugg nii ñu ngi jugee euh, Arafa jëm Muzdalifa nii waaw gis ngeen ni ngeen ko gisee bii fi ñu ngi nii mbooloo mu bare bari ñoo fi nekk comme ni ngeen ko gisee ni ak Cinevision TV ñu leen toppal ay taabu aj gi gis ngeen ñetti fan yi moom mooy ñetti fan yi gën a ci aj waaw ndax fii Musdalifa fee ñu war a fore xeer ñu war a sànni jamra buñ fi jugee nag dem mën a waaj waaja daal di continuer dem sànni di jamra salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk Cinevision TV comme li ngeen ko gisee nii ñu ngi nii Musdalifa Kari yi ni legui ñuy for ay xeer pour dem sanni ci ñu jamra jamra bi ci kini bi bo ben jamra bi rek lañuy ñuy ñepp sani fa lañuy sanni ji gis ngeen ko mbolo mi ni ñepp mi ni tok regroupement Moussa ak ay pèlerin ñi ngi ni julli nañu suñu timis ba paré julli suñu gee ñaari rakka wañi ko pas for nañu suñu xeer paré tok di xaar heure bi nga xamanteni mom lañuy jox pour ñu mëna départé fi dem Sani suñu jamra waye buñu ñu dem ñi nga xamante ay mag lañ te ñoo dañu yobbu ñu dem togi muna buñu ñu muna ñu joxé ñi leen wara a ñu sànni leen comme ni ngeen ko gisee ni car yaa ngi di waccé ñun ñëpp ñi ngi ni tok julli suñu timis ak suñu gee ba pare julli suñu safa ak tok di xaar pour mëna départ dem sànni jamra yi comme ni ngeen ko gisee mbolo ma ngi ni tok comme ni ko salaa salaam defee woon moom bi mu ñëwee Musdalifa def fee fanaanoon waaye nag ab changement yi nga xam moom moo am moo tax yu bëree bëri ci yoo xam ne saoudiens yi dañ koo def organisation suñu demee ba guddi bi xaajaar dañuy commencé di bàyyi nit ñi ñu génn ndànk ndànk dem sànni ci xeer ngeen ngeen jëf yéen a ngi ànd ak seen mbokk El Hadj Sele ak seen site bu mag boobu ñuy wax Cinevision TV ñu ngi leen di ñaan yéen ñuy suivre vidéo yooyu yëpp ak aj gi ngeen abonné ci site bi te tapoter live te di commenter lu bëree bari loolu ñu ngi koy ñaan képp képp koo xam ne abonné nga te ñëwaguloo màkka yàlla na nga ñëw màkka aj si képp ku abonné gul te abonné te ñëw màkka yàlla bu mu nekk sa mujj aj yàlla boo fi loo fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñu ngi leen di ziar bu baax ngeen ci ànd ak seen mbokk El Hadj Sele Gaye Moussaat Mourchid ci seen période aj màkk 2023 jërë ngeen jëf te mu wóor ko ne laay ci lay wax ngeen bàyyi xel ci waxtu timis bi ñu koy julli ak gee laay yi nga xam ne moom lañ doon jàng suñu borom daanaka xaw na cee leeral lan lañ war a def ci barab bi ndax dafa wax ne fa ida afadtum min arafat fadkuru llaha inda almashari al haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min addallin su ngeen bàbbikoo arafat mbooloo mi ngeen di yëpp arafa lañ lañ babbi ko ñew bokk na ci baati alquran yi nga xamne dafa doy war moy xol baatu fayadaan nga xamne bu don ci am ndox da nga nan mana am walla mo xamne dafa joge ci barab di ñew ñewin wu am doole bu de mbolo mi itam borom bi da wax ne fa ida afadtum min arafat su ñen babbi ko bayiko arafa kon mboolem yi fi nek ñëpp arafa lañ bayiko borom bi nak mo wax ne fadkurullaha inda al mashar al haram na ngeen may tuddu ci barab bi nga xamne mom lañu woy al mashar al haram al mashar al haram moy musdalifa lepp ne ko borom xam-xam yi di wax na ngeen may tuddu ak dima ma ngir gindi gi nga xamne ma leen gindi wadhkuruhu kama hadakum te laataa ma leen di gindi laataa ma leen di wan aw yoon da ngeen a da ngeen wa in kuntum min qablihi la min ad waaye boo na ci li nga xam ne boo dee bari seetlu tuuti di xool asraaru at tashri da koy gis mooy am na ci njàngale lislaam yoo xam ne taabudi la taabudi mooy da koy def waaye doo xam illa bi lan la dëgg-dëgg xoolal ñi nga xam ne yaa ngi gis fii ñuy sëgg di for ay xeer soixante-dix ay xeer bu fekkee na ngaa taayee foraat ndax fim tol ni ni tambe ben jamra bu ñuy wax jamratul aqaba mom lañ amel juróom-ñaari xeer bu guddi gi xaajee am na dañuy dem fasiyene ko dem sanni gi bu fekkoon nak mana amul ben jafe jafé kon dañuy bàyyi bu suba hmm. ñu soga sanni jamratul aqaba bisub tabaski ben sa jamra bob rek lañ doon sanni waye xam nga jamono ji nim tedde motax li wara am ak li mana am namke ngi koy wax léegi meen bokk ko day am ñaar yoo na ko war a li wara am ak li mana am li warona am moy ñu bàyyi ba suba ñun ñepp ñu sani ci jamratul aqaba kenn ko nek sànni fa juroom ñaari xeer waye nak ndax lool man na am lool ñak gi ñak man am lool motax jamono ji am na ñoo xam ne bu ko digg xaajee nyari dañuy dem sanni seen juroom ñaari doj muy jamratul aqaba su ñu noppee bu fekkee ne am nañu cawarte mën nañoo wéy ñoom ngir lan dem def tawaaful ifaada tawaaful ifaada farata la ci nga xam ne daa def tamato ndax moom kii def tamato jamono ji ci aj la nekk noonu farata la itam ci ki nga xam ne da doon def ifraat noonu itam farata la ci nga xam ne da doon def xiraan su ko defee ñoom bu ñu noppee loolu ku ca jiitalu toon ci ñoom ñaar ñi ma wax mooy ci ifraada ci xiraan ku ci jiitalu toon dox safa ak marwa am nga koy baamuwaat ala kulli xaalin li ngay laaj mooy barab bi suñu borom yàlla daa am lum na fi sant moom moo nu wax nañ ci wàcc yàlla moo nu digal ne nañ wàcc ci barab bi waaye buñ fa wàccee tam nañ koy tudd loolu tam maa ngi koy bàyyiloo xel mbokk yi nga xam ne ñoo fi bokk nekk mooy du barab bu ñuy toog di waxtaan mm-hmm. waxtaan moom dëgg aayut dagan na waaye nag fenn fu ne ak lañ la fa def loo barab bi moom yàlla moo joxe ndigal ne fa ida afadtum min arafat fadkuru llaha inda al mashar al haram kon ku fi waay lu fi waay mën a tudd ci ay adkar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar lu fi waay mën ci ñaan itam ndax ñaan ba tey ci fikku la tudd ci lay dugg ñaan goo xam ne doomu aadama dese woon na ko ca arafa mën na koo dabaatal ñaan ko suñu borom ndax yàlla man ne su ko ñaan ci barab yëpp rawatina bu fekkee daa joxe ndigal ci nañ ko tudd tudd ñaan day duggaale ci biir mhm. kon loolu laa la mën a tënkal ci barab yi ñu wooye almasharul haram jàng naa ko léegi ci alxuraan mhm. yàlla moo santaane ne buñ jógee arafa nañ jaar ci barab bi tudd ko fa waaye nañ jaar barab bi itam ngir fàttali ko fa ngir xéewal yi nga xam ne ñu ko defal te mooy gindinoo ginnaaw boo xam ne dañoo nekkoon ci agréer jërëjëf sëñ Xaadim ñu ngi lay sant la yàlla yàlla yàlla nangu say ñaan nangu sa aj nangu ñaan yi fi mbolo yépp ñaan kon mbokk yi ni ngeen ko gisee moom du dañ duñu leeral ay bind ci étape bu ñu toll ak fuñ ko soxlaa rek ak jàppandi lam ñi ngi koy ñaanal borom bi subhanahu wa taala yàlla na barkeel xam-xamam yàlla na ko yàlla taxaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu comme ni ngeen ko gisee ñëpp julli nañ ba pare ñi ngi toog nii ñii di def seen i ñaan ñii yor seen i di jàng ñii di def seen i askar nga xamante ni noonu la ko yonent saa salaam daan def ak sahabam noonu la ko regroupement mourchid di defee ak pèlerin at mu kon ki leen ko doon dégtal mooy seen mbokk El Hadj Sele Gueye ànd ak bu mag boobu ñuy wax Cinevision TV kon ba ci kanam allah bu ñu waree départ war a dem jamaraat itam nii lañ koy topp ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.